الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوسي تي في جسان فيدوبي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 سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله ها نحن نرحب بضيوف شيخ الإسلام بقيادة سمو الأمير آدو بايرو وشيخ العلامة طاهر بوتشي ووفد من جمعية الفاتحية في طليعة موكب من ملايين من المسلمين برا أتوا برا وبحرا وجوا وإن أنسى فلن ننسى أبدا مأول خاطر ورد في قلوب الزوار وهي وهو منظر مسجد شيخ الإسلام قد أقبل عليه الأحباب آتنا من كافة أنحاء العالم كافة أنحاء العالم

jëm ci gàmmu Medina international Medina Baye di gàmmu international mbooleem Nigéria nag buñ ko waxee romb ne Nigéria mbooleem Afrique ñëw nañ ci gàmmu gi ak Europe ak Amérique ak Asie bis lenn ci limu mu junni bis yi ñuy jegeñaale jaar ci yoonu suuf dugg Kidira jóge ba Angola jóge ba keña Niger Tchad Nigéria Ghana Mali yooyu yëpp ak Togo ak jëm ci Sénégal ci gàmmu Medina Baye ci ubbite jumaa ji ngir wuy si woote Cheikh Ibrahima Niass bi ñii yoonu gaal lañ ñëwee jóge ci île Sénégal yi rawatina île di Saloum gaal yu mag yi téeméer yi ñetti téeméer doomu aadama boole ko sikkar ci géej gi ñëw jëm si Medina Baye di teer si ndàngaan kon yoonu géej yoonu suuf ak yoonu avion yëpp ñëw nañ gàmmu si ak yoonu tànk yoo xam ne ñu ko wane ñoo xam ne doxe ne Nigéria ba Sénégal ak réew yi ko jege lii nag mooy mbooloo mi ci biir Medina Baye ci bisu yowmal juma ji yow ma yowmal xudsi bi nag moo njëkk muy alxames ji ngir jàppale Palestine ndax jëmm la joo xam ne jëmmal lislaam la kon fu metti rek nañ koo yëg ñi ngi gis mbooloo mi ñii ñu gis ñi ngi rang jëm ci xabru Cheikh Ibrahima Niass di ziyaare kon lii mooy bisu yowmal xudsi ak jumaa ji wa حمدنا حمدا يتلو ونرحب بكم مرة أخرى ونقول أن تلبيتكم وحضوركم أثلج صدورنا وخفف علينا العابة أن اجتمعنا عربا وأفارقة وحتى أجانب وأوروبيين وأمريكيين اجتمعنا كلا تحت ظلال الشيخ إبراهيم يس نشجب ما يحدث في شرق الأوسط ما يحدث في فلسطين بالذات ونرجو الله تعالى تبارك وتعالى يعيننا أما هذه اللجنة التي أعلنا عنها فنحن نضيف أننا سنقيمها في يوم حافل في دكار يحضر الجميع يعين سفير بريطانيا سفير فلسطين ثم آه، نشترك فيه مع جميع سفراء العرب ونعلن الأمر ونعلم بها جميع حكومات العرب ونشكركم ونسلج صدوركم الآن بتلاوة من القرآن الكريم كنا دعونا الشيخ محمد أحمد أحمد النعي نعيم مصر وأتى وهو يريد أن يقرأ لنا في مسامعنا بعض آية ذكر كريم سلبي ما بغون سانسي نياري كادو سي تورو غوفرنمان بي بريمير مينيستر اك بريزيدان de bi nga xam ne dina fi ñëw suba bu fi ñëwee incha allah li nga xam ne mooy résolution yi ngeen fi lire prévoir ngeen ci programme bi pour jox ko ko waaye nag comme man maa fi toogal nguur gi toogal fi président de la République teewal fi premier ministre teewal fi bi ma ñëw fii jëmmal état bi si seen jotaay bi di leen feddali disponibilité nguur gi di leen xamal ne tam ñu ngi bàyyi xel liggéey bi ngeen fi def yow sëñ Mamoun xam nga si dara moo tax ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gannaaw bi ñu santee gërëm mbollem ñi nga xamne ño bok ci fami Cheikh al Islam ñi fi ñëw tew ci waye di sant di gërëm ñi nga xamne tam ñoy représentant diplomatique fi ñëw muy ambassadeur yi ak responsable gouvernement yi di len gërëm di len sant di ñaan yàlla jotaay bi nga xamne def nañ ko yàlla jur ci njëriñ ñu ngi len di gërëm di leen sant wasalaam aadati almamzujati bilfaxri walictizaz an uxaatiba jamcakum alkarim hada bilisalati an nafsi وبالإنابة عن مجموعة السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية السنغال الشقيقة ويتضاعف إحساسي بالغبطة والافتخار في الواقع لأنني أخاطبكم في هذا اليوم المبارك ونحن نحتفل جميعا بمولد الهدى والنور سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم فضيلة الشيخ الخليفة العام فضيلة الشيخ الناطق الرسمي باسم الخليفة سعادة السيد الحاكم أصحاب السعادة السادة السفراء أصحاب الفضيلة السيدات والسادة الضيوف الكرام إن حرص الفيضة وعندما نتحدث عن المسجد الأقصى مقرونا بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإننا إنما نتحدث في الواقع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ذلك المكان الطاهر المقدس الذي بجله الذكر الحكيم وعظمه وحث النبي الكريم على توقيره وتكريمه وزيارته وهو مسرى الرسول الكريم على نحو ما جاء في سورة الإسراء حيث يقول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم كذلك يجيء هذا الاحتفال بيوم القدس ليجسد اهتمام جمهورية السنغال بصفة عامة واهتمام فخامة الرئيس الأستاذ عبد الله واد بصفة خاصة بالقدس وبالقضية الفلسطينية وبضرورة إيجاد حل نهائي وسلمي لها وذلك من منطلق ترأسه لمنظمة المؤتمر الإسلامي ودوره المشهور والمشهود والمقدر في هذا الخصوص ومن المعلوم بالطبع أن منظمة المؤتمر الإسلامي إنما أنشئت في الأساس كرد فعل على قيام العصابات الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى في عام 1969 ولذلك فإنه لا غرو أن احتشدت كل هذه المعاني وتعانقت كل هذه المغازي والدلالات في إطار هذا الاحتفال المبارك بيوم الأقصى فضيلة الشيخ الناطق الرسمي باسم الخليفة أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة السيدات والسادة الضيوف الكرام إننا كسفراء عرب نود أن ننتهز هذه السانحة لكي نؤكد على الطابع المركزي لقضية القدس الشريف بالنسبة للأممية للقدس الشرقية المحتلة فضيلة الخليفة أحمد الياس خليفة الشيخ الإسلام حفظه الله فضيلة الشيخ محمود الناس الناطق الرسمي باسم الخليفة حفظه الله سعادة السيد والي كونخ ممثل فخامة الرئيس عبد الله واد حفظه الله أصحاب السعادة أخواتي إخواني الحضور الكرام أتقدم لكم بكل التحية والتقدير والاعتزاز لجهدكم المستمر في دعم القضية الفلسطينية ونحن نجتمع اليوم بفضل هذا الجهد الذي ينم عن إيمانكم الكبير بالله عز وجل La direction présidée par votre frère Mahmoud Abbas Abou Mazen, un message de fraternité et de remerciement de Cheikh Khalif Baïnias ainsi qu'à tous les croyants musulmans et l'ensemble du peuple frère de Sénégal. C'est un joie et un rôle pour moi de euh, prendre la parole devant vous pour cette journée de solidarité avec la Palestine. Je crois que vous serez tout d'accord avec moi pour dire que le Sénégal et la Palestine, c'est une longue histoire de fraternité et de solidarité. Euh, remercier d'ailleurs dans le cadre du Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la guerre illégale d'Israël sur Gaza, le Sénégal a participé activement à l'adoption du rapport Goldstone à Genève et à New York. mesdames, Messieurs, c'est une occasion précieuse que me donnez aujourd'hui de parler de notre capitale, Al-Quds. La situation sur le terrain est extrêmement préoccupante, et cela sur le trois euh, qui construit le territoire palestinien sous occupation israélienne depuis 1967 Gaza, Cisjordanie et Jérusalem. Et bien que grâce au travail du gouvernement palestinien et de son président à la situation économique et sécuritaire, cet ensemble amélioré, mais la situation globale reste fragile. Il faut bien comprendre que nous vivons sous l'occupation militaire israélienne qui contrôle notre terre et nous oppose un État palestinien. Et puis, il y a la colonisation tout est fait pour rendre impossible la vie des Palestiniens et notamment les habitants de Qods al-Sharif, cela à travers des mesures. C'est aussi euh, la visage de visage musulman musulman et chrétien dans Qods et la dernière décision de l'Israël d'ajouter Al-Haram Ibrahimi et Masjid Bilal al sur la liste patrimoine israélien. Certes, la paix reste notre objectif ultime, mais pas n'importe quelle paix, un paix juste et réel. وذاك الرجل الذي ناضل وكان رئيس المؤتمر مؤتمر العالم الاسلامي وورلد مسلم كونغرس وكان معه مع معهما ميثاقا ايمانيا ان كلا من الاقطار ثلاثه وكانوا جميعا تحت السيطرة هنا تحت فرنسا وفي لبنان تحت فرنسا وفي القدس تحت الانتداب البريطاني تعاهدوا قلت على أن أي قطر يستقل قبل القطرين الأخيرين تعدت كل الخطوط الحمراء ولأن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من حفريات في باب المغاربة ومن شق للأنفاق تحت المسجد الأقصى لبناء الهيكل المزعوم يعتبر جريمة نكراء بكل المقاييس والأبعاد عدا كونه يشكل تعديا سافرا على مقدسات المسلمين وحرماتهم واستفزازا صارخا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم ومواصلة للنضال المستميت الذي أسس له وتولاه الشيخ الإسلام الشيخ الحاج إبراهيم نياس وبذل في سبيله كل غال ونفيس وخلده في كتبه ورسائله وخطبه ودواوينه وربى عليه أبناءه وأتباعه ومريديه وتأسيا بما قام به الشيخ وأوصى به وأمر به فإننا نحن أتباع الشيخ الحاج إبراهيم نياس رضي الله عنه القادمين من شتى أنحاء العالم والمجتمعين هنا في يوم القدس المنظم بمدينة الشيخ في كولخ تزامنا مع المولد النبوي بحضور وفود سامية من مختلف الدول العربية والإسلامية وبمشاركة ممثلين لعديد المنظمات العربية والإسلامية والدولية نؤكد قياما منا بالواجب الديني والإنساني والأخلاقي في هذا الإعلان التاريخي الصادر في هذه المناسبة الغالية على ما يلي والداعمة للمقاومة والرافضة لكل مظاهر التطبيع المجاني مع المحتل الإسرائيلي أننا لن نكل ولن نمل من فتح المخططات الصهيونية وتعريتها وكشفها ولن تفتر عزائمنا أبدا في الدفاع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وفي دعم الشعب الفلسطيني المشاهد المناضل الصابر في جهاده ومعركته التي هي معركتنا جميعا ضد المحتل الإسرائيلي الغاضب الذي عم خطره بقاع العالم ثالثا نلزم قادة المسلمين بأن يقوموا بدورهم تجاه المسجد الأقصى للحيولة دون تهويد القدس وأن لا يقفوا عند مجرد الإدانة والشجب والاستنكار وذلك باتخاذ قرارات عملية جادة دون توان أو كسل مع تغيير منهجية العمل وطرق مواجهة المحتل الإسرائيلي الحاقد et de leur volonté réelle à mettre fin au tort fait au peuple palestinien par un seul occupant, l'occupant israélien. Suite au déplacement des populations injustifiées de la ville d'Al-Quds et de leurs habitations démolies jours et nuits par ces derniers. Suite à la démolition de la partie occidentale de la mosquée d'Al-Quds pour la construction de temples dits de Salomon qui compromet le lieu de culte des musulmans et de sa sacralité. Poursuivons le combat de Cheikh al-Islam El Haj Ibrahim Nias, engagé dans la lutte contre l'injustice et la défense de l'islam et des musulmans. Dans ses correspondances, dans ses livres, dans ses causeries, dans ses voyages et dans ses recueils poétiques, dont l'héritage est resté intact, incarné par ses fils et ses disciples. Nous, famille de Cheikh el-Islam El-Haj Ibrahim Nias, avec à sa tête le calife Cheikh Ahmed Dam Ibrahim, l'ensemble des disciples de Cheikh el islam El Haj Ibrahim et de tous les musulmans du Sénégal venus de continents différents, rassemblés ici en ce jour solennel, dans cette cité bénie, coïncidant avec le jour du Mauloud, et en présence d'honorables invités venus de différents pays, d'organisations islamiques et gouvernementales, déclarons la lutte pour la restauration des droits des Palestiniens à asseoir leur État comme une lutte divine, humanitaire, morale. Condamnons les actes barbares menée par les peuples juifs oppresseurs et le déplacement des Palestiniens cherchant à les éloigner encore et encore de leur mosquée d'Al-Quds. Réaffirmons ici notre engagement à côté du peuple palestinien en épargnant aucun moyen pour soutenir ce peuple dans son combat qui est le nôtre. Demandons aux leaders de la Oumma d'aller vers des actes concrets pour arrêter définitivement le projet sioniste soutenu par les Occidentaux pour que le peuple palestinien rentre dans ses droits. Par ailleurs, nous proposons une série d'actions concrètes, parmi lesquelles un combat équilibré et juste par tous les moyens légaux. Une sensibilisation religieuse et poursuivie, multidimensionnelle, sur le caractère sacré de la mosquée d'Al-Quds une campagne médiatique soutenue mettant à nu les mauvaises intentions des Juifs et leur des gémonistes à travers des tables rondes, colloques et autres moyens de sensibilisation afin que chaque jour soit un jour de solidarité de la Palestine pour que les mémoires ne cessent de s'en souvenir et d'en faire leur propre combat. Mais surtout, surtout pour nous musulmans et disciples de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahim, ne jamais arrêter l'invocation, car notre véritable arme, c'est l'invocation jour et nuit pour que nos prières soient exaucées et que Dieu nous donne la victoire nous n'en serons terminés sans proposer la création d'un comité de suivi pour que ce jour soit un départ nouveau dans ce combat qui ne permet plus le silence et qui ne doit plus permettre à aucun musulman d'être tranquille ni d'avoir un sommeil tranquille. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء جناو يوم القرسي باسم ويعجم بي بريزيدان لابيبليك الاجي عبد الله يعد اكسيدي بريزيدان دلوسي جير اوبيتي جمعي مدينة جيغا خمني mboolem àddina bi teew nañ nuyu na président Sidi mohammed Abdullah bu jiitoon Mauritanie ñu non diko jox loxo Cheikh Mouhamadul ma ibrahim ness mi tewal khalifa bi ak Cheikh Ahmad Tidiane ci wetam sidi Mokhtar Cheikh Mouhamad Lamine kii Sidi mohammed la doomu khalifa bi. ñu ngi ni toog bi waxtaan njabootu Cheikh al Islam ci résidence su xalif Cheikh Ahmad Dame Ibrahima Niass di nga xam ne moo ko teeru njabootu Cheikh Ibrahima Niass teew tàggatal président Wade di président aussi ci bisu diine bu bi ak ci Afrique mi nga xam ne Medina Baye la xewee capitale religieuse boo xam ne mbooleem fayda bi teew nañ mbooleem adduna bi teew nañ ñi président mi nga ànd ak premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye doomu Sine Saloum di loxoom di koy jàppale ci liggéeyam ak directeur cabinet abib si ñoom ñëw nañu àdduna yëpp teeru leen ma dina Baye capital de la fayda tijaniya ngir président Wade mooy président kii Kaolack teew na ak mboolem kilifay Kaolack yi teeru président ak euh, julli di fa newoon yëpp ngir Medina capital de la fayda tijaniya ñu ngi teeru président aussi di président Sénégal Maître Abdoulaye Wade ci bisu ubbite jumaa ji nga xam ne moo tolloog juddu sallallahu alayhi wa sallam te ajuma am ci jullit ñi bisu juddu Yonent am ngëneel ci jullit ñi jumaa ji ko ubbi ci bis boobu loolu la gisagum Kaolack la la euh, teranga Sénégal yëpp ko moom amul Sénégal chrétien amul Sénégal katolik loo xam ne ay Sénégal ñoo ko tàmbali woon ay Sénégal ñoo ko àggali ay Sénégal ñoo fii des moom ko loolu moom rek la moo dajale nit ñi bés bi tey ñu sant yàlla ci liw ay baay maam tàmbali woon àgg na ci suñuy loxo tey alhamdulilah rabbil alamin ci taxawaayu ay nit ñu bëri euh, kenn nga ci war nag boo ñëwee fekk si jotaayu euh, sanc bi ñu ngi kontaan ndax euh, dina wone waxtu wu nekk ñu ngi bees ànd ak suñ kilifa suñ président ñu ngi bees itam ànd ak suñ gouvernement euh, ñun ñëpp ñu ngi ànd di beesal loo xam ne mooy mbiru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla ko ko dig ne ko waxtu wu nekk damay beesal say yëf bon bésu tey bi bésu beesal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ñu ngi ànd daje ci loolu ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dimbale ñu Euh, bañ àgg ci suñuy xememteef ñun ñëpp pour suñ diine pour suñu réew ak euh, pour mboolem jullit ñi yàlla may leen yiw yàlla may leen jàmm yàlla may leen victoire ci mboolem loo xam ne jublu nañ ci pour luy jëriñ doomu aadama ñu ngi kontaan ci loolu ñu ngi lay tatagal ci gis la desu tey bii ci biir jullit ñu daja fii yëpp jullitu àddina bi yëpp daje fii gis la nga nekk ci suñu kanam jiite ko ñoom la ciy gërëm bu baax. yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla yokk sa taxawaay eh, bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf alhamdulilah kon mbokk yi noonu ngeen ko gisee jumaa jaa ngi noonu président ngi dugg si noonu ci tente bi balay dem ci jumaa ji mi nga ànd ak eh, corps diplomatique bi yëpp nga xam ne ñoo nekk Dakar ànd ak ay ministre am ñi ngi noonu nag ndeysaan di dugg ci tant bi ñi ngi xool ci mbooloo mi mbooleem doomi baay yi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom di dugg si ci tant bi fekk nañ nag gan ñoo xam ne wuute nañ fu ñu jugee ndax noonu la ko Cheikh Ibrahima waxee woon nee na mbooloo mi bëri nañ seen i làmmiñ wute na waaye ñoom ñëpp ñoo bokk benn pas-pas bi اختلفت ارسنهم والعقد متحد حقا لرب الحمد كوكو نيو غيس نلغي موي بريزدان وموريتاني بو نجيك با اكا نيو غيس حبيب سيدي غيس ايتم مينيستر بريمير مينيستر نيو غيس امباسادور على بيغا خامل نيو تيو في سي سنغال تيوال في سي ني ريو نيو نيو نيو بيس القدس بي شيخ مهدي ميغي نون دي شيخ دومي شيخ ابراهيم موي كيغا خامل موكو تاتاغال سي تانت بي نيك موي ديم سي بير جوماجي مي سيدي محمد الحبيب ميغي نون ماغي غيس سي مبولو مي ايتم شيخ عبد الملك ميغي سي وون سي بير شيخ باي مامون ماغا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 السلام عليكم يلزم من هذه المناسبة مناقشة الشيخ محمد بن عمير إبراهيم وحبيب عبد الرحمن وأبو بكر وغيرهم من إبلاغ الحضرة ونقول لهم شكرا بارك الله بكم وبالأمان وبالأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. président dafa euh, gannaaw bu mu la nuyoo ba pare te gal na ci turu sëriñ bi nee na ngëneelu euh, jumaa la doon wax ak ñi nga xam ne ñoo ci participé ci ay buur ak ni fi teew ci ay gan di la wax ne tey jii ci Kaolack Afrique teew na fi te yàlla baaxee na la nga doon président bi nga xam ne yaa ko jiite ba nañu ngay gërëm sa teew loolu ci gàttal président moom la sëñ Cheikh Ndiaye sa wax ne nañ la ko wax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 الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثام رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ورضي الله عن صحابته وآل بيته السادة القادة الأبطال وعن خليفته وحامل سره ووارث سره وجهره القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم ما أقام المؤمنون بتعمير المساجد وبعد فإلى كافة من ضمت هذه البلدة هذه البلدة مدينة من رجال ونساء وأكوان وأحباب سلوان وغير سلوان ممن أجابوا داعي الله وفارقوا الأهل والأوطان وكابدوا الحجارة والحصى والرمال ابتغاء رضوان الله الذين وما بذلوه من الجهود في هذا المسعى المشهور والتجارة التي لم تبور سلام يليه الكمال يحاكي كمال الإيمان وتحية مصحوبة باليمن والفوز والربح والعافية والإحسان عن مدد مولانا الخط التجاني سيدنا أحمد رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين من كاتبه إليكم محبكم حقا إبراهيم بن الحاج عبد الله التجاني عامله الله بفضله في الدارين وبعد فإني أسأل الله تعالى متوسلا بذاته وصفاته وأسمائه وبنبيه وسره وكافة حزه من أنبيائه وسائر أوليائه أن يتقبل منا ومنكم هذا السعي وأن يعطينا وإياكم أوفر نصيب في الدارين من العافية والإكرام والإحسان والسعادة والرضوان والمحبة والغنى الحسي والمعنوي والبركة في كل ما دق وجل من سائر حركاتكم وسكناتكم والله يقر أعينكم في هذه وتلك والله يرفعكم في هذه وتلك والله يخزيكم في هذه وتلك والله يعافيكم في هذه وتلك والله يستركم بستره الجميل في هذه وتلك والله يرزقكم العلم النافع في هذه وتلك والذرية الصالحة الطيبة المباركة والله يعطينا ما وعدنا على لسان نبيه في سبيل في هذه وتلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم بوكي توغيب كليفي في توغيب السلام عليكم وا سنغال ماغي يندي نيو كوليك جوتور اكسسان دي غروم يالا سونو غروم ميم اندي في تاي yéen waa njabootu El Hadj Ibrahima Niass ngeen sédd ma pour ma ubbi buntu kër yàlla bi lañ nga xam ni moom moo ko commencé woon ngeen nekk ci ba mu sotti tey muy kër bu rafet mucc ayib dama euh, ñëw ci ñetti fànn bi ci jiitu mooy nekk Sénégal sénégalais ci kilifa sénégalais yi nga xam ni lu demee nii bu ñu ko mënee war nañ ko fekk loolu mooy li ci jiitu li Sénégal Sénégal ñoo ma ñoo ma fal jox ma kaddu gi ma représenté leen fii ci àddina bi réewu àddina beneen bi yàlla def ci biir loolu cër bi nga xam ni waa senegal ñoo ma ko sédd ñuy dox ba réewu jullit yëpp daje jox ma beneen cër mooy ma nekk président wu réewu ñu nekk ci àddina bi ñetti fànn yooyu moo ma fi indi bu ci nekk doyoon na pour ma ma boole ñett yooyu moo tax mooy gërëm yàlla suñu borom euh, ndax euh, bërëb bu mel nii nga xam ni El Hadj Ibrahima Niass ñun ni moo ko dooroon moo ko sancoon mu am lu ko yàlla defal ba jullit yi ci Afrique yëpp di ko defe naa ni barewul foo mën a taxaw ci Afrique te ay ay taalibeem nekk ñu démb laa ko doon ba ñii fi ñëw tey jóge ci dëkku Afrique yu bare ñu ma leen jéem a lim sama xaw ma damay taxaw nag naa ni am na jóge Nigéria Somalie ñu ngi Soudan ñu ci gën a sori loolu nag ndam ndamu Sénégal ndamu lislaam la ndamu Sénégal bu nu amee ci Sénégal ku demee noonu àddina bi yëpp yaakaar ko mu jóge fi la mu daan jàngale ñoo ne nekk ci ba tey te koo ci waxtaanal laaj ko lu tax mu topp ko mu ne la mu daan jàngale ma di ko jàngale loolu ndamu Sénégal ma di nuyu donc le calife général di leen nuyu yéen ñëpp ay doomam ay jarbaatam ay nijaayam leen ñëpp maa ngi leen di nuyu euh, di leen gërëm donc cër bi nga xam ne moom la ñu jox euh, may wax ni bés bii Sénégal yëpp ñoo ko war a màggal li ma bëgg rek moo di suñu jotaay bi ñu bokk ñaanal Sénégal benn dara bañ ñu yàq bañ ko def ñaar ñu bokk ñaanal Afrique. Afrique yëpp Sénégal bu baaxee Sénégal ci Afrique la Afrique bu ngi ci biir ngeen ñaanal bépp jullit bu leen soobee nag ñaanal euh, imaam président imaam nee mi ngi sant yàlla bu baax. ñii tatagal tatagal président. nee na ñu ngi lay tatagal fii ci Medina Baye. tatagal buuri kanu itam. mooy di tatagal buuri kanu itam. muy Amin Ada Bayero. muy Amin Ada Bayero. di tatagal mboolem kilifa yi fii. di tatagal mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo bàyyeekoo biti réew ak biir réew fii ci Sénégal. tatagal excellence Moustapha Niass. mu ne ñu ngi tatagal son excellence Moustapha Niass. di tatagal ñi fi teewal buuri Maroc. ñi fi tatagal ñi fi teewal royaume euh, du Maroc. ñu ngi koy wax ci turi kilifa yi jotaay bi. ñu ngi koy wax ci turu kilifa yi jotaay bii. muy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima muy Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima. xam ne moo uutu xalifa bi fii tey. moo xam ne moo uutu tey xalifa bi tey. moo amee kaddu gi. moo amee kaddu gi. mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turam. mu ne mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turam. ci turi mboolem doomi baay yëpp. di tur ci turi mboolem doomi baay yëpp. ci turi mboolem taalibe baay yëpp. di turi ci turi mboolem taalibe baay yëpp. ci turi mboolem famille bi yëpp. di ci turi mboolem famille bi yëpp. di leen ñaanal yàlla. mi ngi leen di ñaanal yàlla. lii président wax ne nañ ko ñaanal nañ ñaanal Sénégal nañ ñaanal Afrique. mooy li seet bi président wax ne nañ ñaanal Sénégal nañ ñaanal Afrique. ñaanal ko moom itam. ñaanal ko moom itam. ñu ngi leen di ñaanal yàlla. ñu ngi leen di ñaanal yàlla nee na. yàlla na yàlla def jàmm ci Afrique. yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal ak ci Afrique. yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal. yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal. yàlla na ko yàlla defal jàmm moom mi nga xam ne moo jiite Sénégal. yow mi nga xam ne yaa jiite Sénégal yàlla na la yàlla defal jàmm. te may la tawféex. te may la tawféex ci li ngay def. ba nga eggali liggéey bi. ba nga eggali liggéey bi nga xam ne moom nga sëmb. ci jàmm ci jàmm may la wér may la wér te yokk sa fan te yokk sa fan ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke yonent yàlla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am yaakaar ne bis bii ñu ngi am yaakaar ne bés bii luñ ci ñaan rek yàlla dana ko nangu lépp luñ ci ñaan rek yàlla dana ko nangu ndax dafa jot tase gàmmo ndax dafa tasee gàmmo tasee gi tam ñuy ubbi néegu yàlla bi tasee gi tam ñuy ubbi néegu yàlla bi yaakaar naa ne luñ la fi ñaanal ñaanal ko Sénégal ñaanal ko Afrique yaakaar na ne lépp lu nga fi ñaanal ñaanal ko Sénégal ñaanal ko Afrique ñaanal ko ñi jiite Afrique ñëpp ñaanal ko ñi jiital Afrique ñëpp yàlla danañu ko may yàlla يا ربنا وسلم على من هو للقلق رحمة وصفاء billaay bi ñu ubbee jumaa ji ba pare nag daloo ko président de la république di président aussi maire Abdoulaye Mbacke Diop kër soppeem Cheikh Mamadou Mamoun Ibrahima Niass mi seen kóllëre mi porte-parole xalifa bi fii ci saalu Cheikh Mamadou Mamoun la ak premier ministre ak directeur de cahier bi si ak maître ministre d'État Ousmane Ngom ak ministre Farba Senghor ak ministre Awa Ndiaye ak délégation yu bëri ñu ngi ci kër Serigne

Euh, damay ñëw fii tey ci teraanga boo xam ne da ma ko jox moo di ma ubbil leen jumaa ji nga xam ne dangeen ko liggéey ba mu sotti te Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass commencé woon ko dooroon ko te jamono boobu ñaanoon na ko mu sotti yaakaar naa ne loolu def ngeen ko sotti na yaatu na rafet na e, ñun de nga xam ni côté adduna bi noo ko yor gan bu fi ñëw bu gis ko dana rek senegal te man loolu rek laa kon nag ci côté boobu ba tey yéen ngi ci yéen ngi fi dimbale ma di la ñaan nga jot leen sama nuyu Cheikh Ahmed Dame Niass xalif général de Niassène ñu ngi koy ñaanal yàlla mu dellu fii si ñun jiite lu ñu jiite woon maa ngi gërëm maa ngi lay gërëm yow ci sa bopp ndax ni nga ma teertoo sama diggante ak yow ñëpp xam na ko parce que dafa yàgg def euh, naa fi ay élection li tax xëy na mato fi fii nga sonn ci lool ñu ànd ko di ko xeex ba jot ko ma di la gërëm ci loolu yónni naa la fi aussi mission boo xam ni dafa nekk mission boo xam ne soxlawul sax ñu di ko wax ma ñëpp di ko dégg mission la pour dox jàmm rek ndax dafa am réew yoo xam ni dañuy xeex xeex yu metti di ma seet ni gouvernement yëpp yu bare bokk yu gën solo jéem nañu ko dox mënuñu ci dara ma woo ndax xam-xam bi ma xam ci Afrique ak taalibe Baay Ñas yi fi ñu nekk man la kaay nga dem làmbal ma waxtaan ak ñoom ban bunt la ñu mën a jaar bu jàmm am loolu nga defal ma ko kon bu ma yàlla joxee benn loxo boo xam ne ci lay liggéeyee mbiru àddina yi jox ma beneen loxo boo xam ne bu may dox ci diggante jullit jàmm mooy mu yow mi nga demal mu fu nekk dem nga Somalie dem nga Soudan dem nga Érythrée dem nga Soudan dem nga Darfour ci tool boo xam ne dama ne demal nga seetal ma nga indil ma fa ay résultats yu wër parce que damaa toog président Soudan woo ma ci téléphone yaa ngi toog ak moom euh, <clears throat> foofu yàlla def na fa jàmm def na fa jàmm ñu ñaar rek jàmm ji yokku tey ci suba rek laa doon waxtaan ci téléphone ak Idriss Déby ma di ko félicité ci ñu mu deme Soudan parce que diggante bi taroon na ba nga xam ne kenn ku ci nekk bu ñu la nii sa morom sax nga lànk yàlla dimbale nañu ci loolu ji dikk na fii moom bés bu demee nii moom laa wax sànq bu ñu fi ñëwee xanaa dox fi tànk mbokk fi di wëlëre ñaan waaye nag ba tey xam naa ni yéen ñi nga xam ni yéen suñu guide da ngeen di wax ni da ngeen ñuy wax ni l'islam ak politique dañoo ànd bu fekkee politique wax lu baax la rek ci dëkk ñoo ànd parce que yonent bi moo ko jëkk ñëpp moo nekk chef religieux nekk guide dans le temporel en même temps kon nak euh, li nga xam ne mooy mooy mooy suñu tey euh, ubbi buntu néegu yàlla bi ñëpp xam ne jàkka fa ma mënumaa gis jàkka ju ñu tabax fi eggul te dugaloo ma ci sama loxo dama toogee ba tey kon nag bu ngeen defee liggéey bu rafet bu demee yi woo àddina yépp ñu ñëw fi euh, Nigéria ak seen buur bu Kano ak réew yu bare ñooñu ñëw fi di seen taalibe di seeni mbokk war naa ñëw ma teral leen ma won leen aussi ñu ngeen toll ci man moo mën yow ñi nga toll ci man euh, maa ngi la ñaan sunu mbokku nigérian yi fi ñëw nga jotule leen sama njaal ci accident bi fi am ba mu am ñu bari ñoo xam ne dañ cee loolu metti na ma topp metti na Sénégal yëpp ñu ngi leen koy jàll ñu leen ñaanal yàlla yi parce que lulit moom Euh, boo amee sa mbokk walla sa xarit ak mu ma doon bu fi jógee dara desul ñaan ñaanal ñaanal ko yàlla rek loolu moo di li ma bëggoon a wax di la gërëm yàlla yàlla yokk sutura la suuxat suñu diggante man de maa ngi ko suuxat man ci sama wàll yaakaar naa yow itam ci loolu nga nekk kon tamit maa ngi lay gërëm bu baax. Euh, monsieur le président de la République. maître Abdoulaye Wade sama xarit président jullit ñi itam jiite lu séyi ñu ngi lay tatagal fii ngay gan gu rëy ku màgg ci ñun tey ci Medina Baye waaye ñu ngi lay tatagal itam ci barab bu màgg ci pays bu di la wax ne la yàlla indi na la fi jàmm yàlla la sàmm ci jàmm yàlla la yokk ci jàmm say mébét yàlla na ko yàlla àggal li ngi defal ni neex nañu trop parce que bañ amee honneur bi dañu xool ne bàyyi Sénégal rek la bëggoon l'humanité la bëggoon jullit ñëpp la bëggoon waaye senegal def ko doon pour ko réew fu mu toll fu mu dem ne àddina yëpp yëpp yëpp Afrique ma ci gënal Afrique yëpp Sénégal moom moo ci gënal sénégalais Medina Baye moom moo ci gënal loolu daan wax ci famille bi ci turu njaboot gi ci turu taalibe yi. mbooloo maa ngi noonu nag mbokk yi na xaritam jógee di dellu maa ngi noonu nag di ànd moom di ko gunge. mu dellu ànd ak yiw ndax bés bu màgg la boo xam ne ku ko teelee rek yiw woowu dana ci jël sa wàll mbooloo maa ngi ne nekk jumaa jaa ngi ne ak xabru bi mbooloo maa ngi waajal wasifa bi di waajal ci kër jumaa bi nga xam ne baaxoon nañ ko ajuma jot ñu def ko ci bés bu tedd bi nga xam ne mi ngi bi ñuy julli ajuma bu njëkk ci jumaa ji boobaak léegi juróom ñaar fukki at la ak ñaar soixante-douze ans la Euh, ñu ko defoon 25 février 1938. booba ak léegi juróom-ñaar fukk ak ñaar tey nag ci àjjuma daanaka bii mooy anniversaire juróom-ñaar fukk ngi doon jógee fu nekk ci àddina ñëpp Mawlana Cheikh al Islam moo leen indi pour teewee bés bu nga xam ne yiw rek a ci nekk ni ngi nekk ci biir jumaa ji aussi fa waa xam ne ay nationalité yu wuute ñi ngi fi lu ëpp soixante-dix nationalité ñi nga fa bokkuñ fu ñu jógee waaye pas-pas bi benn la làkk yi bokkul am ay barrière linguistique waaye gëm-gëm bi benn la noonu la ko Cheikh Ibrahima waxee woon ixtilafat alsunuhum wal aqdu muttahidun xaqan li rabbil hamdi comme niñ ko waxee woon ci bés bii ci weer yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam la bàyyi daf ci daan ndokkal boppam naan hani an li Ibrahima ba way wa daanu fii nag ñu ngi ci tànt bi dangeen ngeen fi dégg ay woy yu wuute ay nationalité yu bokkul ku ci nekk mu ngi tagg yónent bi di ko kañ ci façon bi nga xam ne moom la ko manee dañu jël ñenn ci ñoom waaye ñu ngi profité ci occasion bi dindi nokkeel Babacar Thiam di ñaan yàlla yàlla na yàlla lokk yokk leeram di ñaanal tim ki nga xam ne mooy al alaama Uh, Mouhamadul Amin Ibrahima Niass mi nga xam ne mooy dundal guddi gi mbokk yaa ngi ay Imam a ci ay gouverneur a ci ay buur a ci ay borom xam-xam yu mag a ngi ci ñëpp a ngi fii di tant Maulana Cheikhul Islam mi nga xam ne def tant bii ngir mu ñeel yonent bi alayhi salatu wasalaam ci bés bu tedd bii bés bii mooy bés yonent bi alayhi salatu wasalaam moom la Cheikh Ibrahima amoon mu tombeek nag mu ci ubbi jumaam ju mag ji jumaa ji nga xam àddina yépp ñu ngi ñëw ngir feetal bés bi gannaaw bés bi nag ñi euh, màggal nañ fi itam ànd nañ fi dajale doole yi ngir dëgëral al xëtsu li nga xam ne ci ñu bàyyi gën a la fonk la mbokk yi ànd dañu daan كفر به وطراء يا ربنا وتعالي وولي الخلق رحمه ورما ويدل الورى على العيب التوحيد وهو المحجة لا بيضاء صنعت رقتام فلفا دملم به ولا إفداء ألف النسك ولا إبادة وقلب وتتبلا وهكذا نجباء وإذا علت الإداية قلبا نسيت في العبادة أداء بعث له عندما بعث بهيرة وداق أن أفداء تدرود الجن عن مقائد الإسم هيك حكمة تدوس أبرحاء آه، فما أن آه، آية الكيانة آية من الوئيم لأن أنبياء ولا أن خديجة بنت قلوان المقصود به سجية وياو وأتى أن المقامة وسر أسدا من أما أفياء وأحادث أنا وأحد رسولي لئن بالبس أعظم وفاء فدعوا إلى سواج وماء ما يبدو قلبنا أسكياء وعطاء في بيتها جبريل ولسلوب في الأمور تياء فأمت أن ألقي ما لتدري أم هو الوئي أم هو الإخماء فاتفا عندك سهار رسول جبريل لفما أنت أو أعيد القطاع فسبنا القديجة أنا وكان زلسي أولا أول كيمياء ثم قام النبي يا إلى الله هو في الكفر ناجة وإباء أمما أطرفت أم الكفر رفداء تداد فيهم أياء ورأينا آياته فدلينا وإطلاق جاءت منه ربي إن الهدى هداك وآيا نور تهدي بأمن تساء ربي إن الهدى هداك وآيا تكنرون تتي بأمان تساء كم رأينا ما ليس يعقل قلب مما ما ليس يلأم العقلاء إن أبا في أتى سيب في لي ولم ينفع الأيد وسقاء والجماعة أصحاب دسيء رجاء أولي أمد فصحاء ويأقعوا بجف نبيا بعدل علي فالأولي باب أوسباء وصلوا بأن نجيس إليه وقالوا وودوا قرباء أخرجوا من أواء وأقرم وأمد أمامة خساء وقبد للجاء أنقبت نقبد أمامة أذى وكفى منهم العلا قرب مرا هو من سدة سور القضاء وأنا مصطفى مدينة وساء قد إليه من ما كتا أنا آه، صلى الله عليه وسلم والله أكرمه وقال شيخنا برهم نس نس نس نس نس باهي نس كتب الأكتاب نس نور الأولياء نس Gawsul Giyaasu Ñas برهما Ñas برهما الناس برهما الناس برهما الناس وقال برهما الناس والله والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مسراه طابت سريرته فاقت سجيته قد تم صورته لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتانا الشيخ كبريتا مميد الناس خريتا يصوت فليس سكيتا بذكر الله إن ياسي ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيوخ الأصر كلهم لهم قادوا لذا سلموا إن كاره تقيم من الدنيا بإفلاس ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد أوطيت قطب مقاما دونه كسب يفوز به وذا عجب إمام الأصر إن ياسي هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنيت به ألومات تعبر القمر بالفيوضات وجلت النهايات جزاك الله إن هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله وللشيخ كشفات وفي معنى كرامات وهل تنأد حصبات لدى الأرصات ذا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو إسحاق إبراهيم لفي المولى تراه يهم وفيها ذاك نعيم ولي الله إن ياسئ ولا لا إله إلا الله لا إله إلا أنين ثم أواه إلى مولاه مغزاه قريب أما مناه بعيد أخلص الناس ولا إله إلا الله لا إله إلا وفي القرآن يا رجل يحل ثم يرتهل بذكر الله يشتغل إمام القوم إن ياثئ ولا إله إلا الله لا إله إلا الله ولوء بالأحاديث ورود فيها بالبعث أشد الناس في الهاث بسيرة سيد الناس ولا إله إلا الله لا وفي هذا المجال قد أجيب الأصر لا أحد يجاريه ولا فرد يزاحم بيء ياسي ولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبو إسحاق عبد الله وجانا نجل عبد الله ينادي كل أهل الله لربي خالق الناس وصاب آد القبور دلت الهلائم من برايا ثم للوسب للقبول اسقمانا بتيبة يا قليل بقرب الدموع ورب القليل وصلاة الهلائم من برايا ثم للغسب للقبول أمكي وسطان جد البواكي مزن عفيرا ساي كل قادر زيد وصلاة على إمام من برايا ثم للوسب للقبول ثم أدي تلك الربوه بما بعد قلبي من كل ساق زقيد وصلاة على إمام البرايا ثم آل القبول وبأني كم قول قد لم أبل فيه أسلا سلاسل وصلاة الهلائم من برايا ثم آل القبول وبأني كم قول استستيا جئت برب المصطفى الختم أمدا حب الكون ولا ألاك فرعا وماتدا حداني أواه قبل أن أريف الأوى صليت بالنيران استياكي يا آه هلكت به والناس في سنة الكراء تمتعت منه الدهر إذ كنت مفردا وسقمت في أسى الزمان وهنني لا في غيرة مما يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباكهم وقد نلت تبريز القرون الأمدا ha yàtí mi ń fara ṣètàn gbé kọ́dé jara lákìn náà ní àjáde tó bá kásá yéde fàbẹ́jà kàfálẹ̀ ajá sèmókòdó làmìrà lákìn náà ní àjáde tó bá kásá yéde fàbẹ́jà kàfálẹ̀ ajá sèmókòdó làmìrà. mbooloo mi euh, tant baa ngi noonu zikarkat yu góor yaa ngi ak yu jigéen yi ndax góor ak jigéen la euh, ni mu amee ay muqaddam muqaddamin la am ay muqaddamaat góor ak jigéen la wax dëgg yàlla euh, tant baa ngi noonu Cheikh Abdourahmane mooy ki ubbi ak alquran daal di jox borom gàmm gi nag muy Cheikh Mouhamadul Amin mu gàmmu gàmmam ilaha illallah حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص قل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا الرجيم الفاتحة من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نسرا وآله الأرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيها ولست تحترق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبقه هتحتوى بيتك المؤمن من خندف فعليا أتحت النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذاك الضياء وفي النور وسبل رشاد نعترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاقه أيروم مخلوق سناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبق ناظر العقل بالعقل ولا دين صراطك المستقيم على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 تخدي به الناقة الأدماء معتجرا في البرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن رسول لسيف يستطاع به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عندهم في نعمة وفواضل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 فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة واختم لنا من الخير يا من لا لنا رب سوى تانئة الربيع بمدحتي الشفيعي بالمنطق البديع أبوي بها مؤملي تهنئة ربيع بمرحتي سبيعي بمنطقنا لا بديعي أبق بها مؤملي يا ربنا صل على خير الأنام من على على السماوات العلا بإذن ربه العليم تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أفق بها مؤملي هذا بشار الموليدي شهر العلا وسددي شهر النبي أحمدي شهر ربيع الأول تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطقي لا بديعي أبقي بها مؤملي قد خص بالربيع إذ كان كالربيع للأرض والشفيع بكل خطب معضل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطقي لا بديعي أبقي بها مؤملي أهلا بشار الفرح شهر ذهاب الترحي وفخرنا والمرحي شهر النبي الأفضل تهنئة ربيعي بمرحتي شريعي بمنطق لا بريعي أبقي بيا مؤملي شهر الفلاح والسرور شهر به ساد الدهور موشح بين شهور متوج مكلل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي ألقي يا مؤملي أهلا بشار الفاتح إغلاق كون الفاتح من خص بالفواتح وحاز ختم الملل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطقي لا بديعي أقف يا مؤملي أهلا بشار الخاتم شار نبي قاسم وفاتح وخاتم وآخر وأول تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بديعي أفقي بيا مؤملي أهلا بشار الناصري للحق شار الآمري بالعرف شهر الظاهري بكل وصف أكمل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أفقي بيا مؤملي أهلا بشار الهادي لمنهج رشادي وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل تهنئة ربيعي بمرحتي سريعي بمنطق لا بديعي أفقي بيا مؤملي أهلا بشاري سيدي لأحمر وأزودي من حاز سبق سددي يوم اعتذار رسلي تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أفقي بيا مؤملي وقد كفاها كلها أعبأها وكلها بقوله أنا لها عند اشتداد الوجل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي ويا لها من خطة جوابه في الحطة من ربي سلتوطا واشفع لدينا تقبل تهنئة ربيعي بمرحتي شريعي بمنطق لا بديعي أبقي بيا وأملي أهلا بشار المصطفى صفة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك أو مرسلين تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بيا مؤملي وشار خير الخلق شهر جميل الخلق شهر عظيم الخلق في المحكم المنزل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بيا مؤملي شهر الذي آثره إله واختاره من حبه خيره عند انقضاء الأجل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بيا مؤملي شهر الذي ما ساقط ومن له الحسن فقط عليه جبريل هباق بكل نور معتلي تهنئة ربي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي أهلا بالليل اثني عشر في ويوم أقر وطيب ذلك السحر ونور أفقي الجليل تهنئة ربيعي بمرحتي شفيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها وأملي كل ما ظهر من خالق يعيي الفكر فيه كرفعه البصر إلى مقامه العلي تهنئة ربي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بريعي أبقي بها مؤملي ومرآته من عجاب آمنة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلين تهنئة ربيعي بمرحتي سريعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي كما تدل الزهر كما ترى القصر في وحل الكسر بصنم المجدل تهنئة ربيعي بمرحتي سريعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي وغاضت البحار وجفت الأنهار من أجله والنار قد طفئت من خجله تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بنيعي افق بها مؤملي هم في نكدي لرميها بالرصد وعزلها عن مقعدي من أجل خير رسلي تهنئة ربيعي بمرحتي سمعي بمنطقي لا بديعي أفقي بها مؤملي شيطاني جرى عظيم شاني من أوضحي البرهاني لعظم ما به ابتلي تهنئة ربيعي بمرحتي سميعي بمنطق لا بنيعي أبقي بها مؤملي بلد الإفضال بأفضل الرجال في أفضل الليالي بالبلد المفضل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد حل في المولود ما في محل زحلي تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي وسابع الولادة وما أتاه سادا من وفق ما أرادا إلهه في الأزل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي أهلا بيوم سمي محمدا خير اسمي رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بديعي أبقي بها مؤملي بحمد الأولين له والآخرين فكان ذا يقينا من الكريم المفضل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بدي ابقي بها مؤملي اهلا بيوم اثنين مولد ثاني اثنين مبعث سر الكون مقدمه المبجل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بدي ابقي بها مؤملي اكرم بشار العجمي إبريل شار الكرم أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين تهنئة ربي بمرحتي سبيعي بمنطق لا أبقي يا محمد أكرم بيوم صار عشرين واستنار لمن حوى الفخار وغفرة من منزله تهنئة ربي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بدي أبقي بها محمدي أكرم بشار النيسان مولد خير إنسان قدوة آل الإحسان والكامل المكمل تهنئة ربي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بني القبيع محمدي قد تمت الآلي في عدة الليالي في زينة المعالي كالجوهر المفصل تهنئة ربيعي بمرحتي سبيعي بمنطق لا بني أبقي بها وأملي تهنئة ربيعي بمدحة الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها مؤملة تهنئة ربي بمرحتي سبيعي بمنطق لا أبغي أبقي بها مؤملي أبغي بها الجمع به يوما ونيل قربه وفضل حب ربه ومن رضاه أملي تهنئة ربي بمرحتي صبي بمنطق لا بني أبقي يا مؤملي بالحسنى والجمع لي في الحسنى لدى الوقر الأسنى مع الرضيق الأفضل تهنئة ربي بمرحتي سبي بمنطق لا بدي أبقي يا مؤملي وناصرا حفيا لا نختشي غويا بجاي عبدك العلي تهنئت ربي بمرحتي سفي بمن تقل بني افقب يا محمد صلى وسلم الاله عليه افضل الصلاه ما دام كونه الاله من ابد لازل تهنئت ربي بمرحتي سبي بمنطق لا بدي افقف يا محمد وآله وصحبه وزوجه وحزبه وكل آل حبه مع السلام الأكمل تهنئة ربي بمرحتي سبي بمنطق لا بدي افقف يا محمد بجاههم يا إلهي اغفر لناظمها وسرداريها وللذي حضر آمين بخفي اللطف واكفهم نوائب الدهر مع آفاته الكدرة أجب آمين وعجل بالذي طلبوا بجاه أحمد مع أصابه الخيرة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا بالحق الهادي إلى الصراط العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي من نبراسه ومن وجوده وجدنا ومن حياته حينا ومن عطائه أعطينا ونحن الليلة نحتفل بذلك الشخص العظيم الكبير الذي أتانا بكل شيء من الله تبارك وتعالى كما كان يقول أنه هو القاسم وأن الله هو المعطي والشيخ كم أكد لنا ذلك أن الله أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أعطاه كل ما وجده ورسول الله يعطي كل من أراد له أن يجد شيئا أو يوجد له شيئا في هذا الوجود ونحن نحتفل على نبراس الشيخ وعادته وعلى خطاه كما رسمها لنا واضحة في بيوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم الوجود وخير الوجود وسبب الوجود لذلك نرحب بكم جميعا ونحتفل بأمر آخر أعظم عظيم تعرفه كلا وهو افتتاح المسجد الذي تركها الشيخ لنا أمانة في أن نكمله ونفتتحه وكان جهود خلفائه الأول من خليفة الشيخ الحاج علي سيسي الشيخ الحاج عبد الله والخليفة الحالي الشيخ أحمد إبراهيم ياس كان جهدهم ورغبتهم كلا أن يصلوا إلى هذا اليوم الذي يتم فيه تدشين هذا المسجد وافتتاحه ونحن نرحب ونهنئ كل من حضر من البلاد المختلفة في العالم من كل مكان من عالم لا نذكر دولة لا توجد دولة إلا أتى منها أشخاص للتعظيم معنا في هذا اليوم المبارك وهذا دليل على أن الشيخ ممثل في كل العالم لأنه يمثل الإسلام ويمثل الحق ويمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لكل من حضر وهنيئا لكل من كان يريد أن يحضر ووجد عذرا منعه من الحضور ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن الثواب إذا جاء يقسم لنا جميعا ويكون لنا في الدنيا وفي الآخرة الحمد لله رب العالمين على إتمام مرحلة من مراحل جهود الشيخ وجهاده وهذا المسجد ولكن هناك مراحل كثيرة عدة لا تنتهي مدى وجود الوجود فاعرفوا ذلك وشمروا وساق وقوموا عن ساق الجد واعلموا أن أبناءنا عليهم دور فيما بعدنا وأحفادنا عليهم دور فيما بعد أبنائنا إلى أن يستمر الدهر إلى يوم القيامة فهذه أمانة في أيدينا <clears throat> نحملها كلا في آه، التعظيم والجودة عن الشيخ وفي تعظيم رسول الله وتنفيذ رسالته الذي قال عنها بلغوا عني ولو آية الحمد لله رب العالمين أن كنا آه، آه، ننتظر هذا اليوم وأحيانا يصيبنا الذهول والخوف من عظمه وها هو الشيخ تحمل هذا العبء فهذه الأمة التي وصلت هنا إلى كولخ في هذه الأيام لا تحفيهم كولخ ولا تحفيهم السنغال وإنما حواهم معنى الشيخ وحواهم قلب الشيخ فعاشوا أحبة آه، كل يتعاون مع أخيه من السنغال إلى أقصى دم جمهورية السودان إلى تشاد إلى نيجيريا الكبيرة العظيمة ونحن نهنئ بمناسبة ذلك ذكر نيجيريا الأمير أدوبايرو الذي حضر مرة أخرى معنا حضر لأنه مخصص مقرب منا ومن الشيخ قبلنا لوالده وله فهو يعرف أين يأتي ولماذا يأتي فليتخذ الجميع قدوة منه وباسم الخليفة الشيخ الحاج أحمد إبراهيم ياس أشكركم جميعا على كل من ساهم في إتمام هذا العمل سمعنا تضحيات كبيرة وإيثار في كل مكان في العالم هناك من ضحوا بالغالي والنفيس للسماح للآخرين غيرهم بالوصول هناك من اشترى تذاكر هناك من اكترى طائرات ونحن نتذكر في ذلك الأخ العزيز سيدي إسحاق رابع الخليفة الذي سمعنا أنه تحمل المشاقة كعادته كما علمناه دائما ونشكر جميع تلامذتي كل من ساهم من قليل إلى كبير فإننا اليوم نحمد الله أننا بدأنا الليلة <clears throat> نجني ثمار هذه الجهود وهي بدايتها فتح هذا المسجد ورضا الشيخ أحمد عنكم ورضا جميع أبناء الشيخ عنكم وعنا نحن تلامذتي جزاكم الله عنا خيرا ومرحبا بكم وأهلا وسهلا من كل أقصى العالم ولكن هناك دول لا بد أن تذكر موريتانيا لا بد أن تذكر السنغال لا بد أن تذكر وجميع <clears throat> دول مثل غانا وتوغو وغيرها وجميع هذه البلاد ضحت وما زالت تضحي في سبيل المسايرة والسير مع الشيخ والعيش مع الشيخ والمشي على نهجه والله يوفقهم جميعا ويوفقكم ويوفقنا جميعا وإليكم رضا أولاد الشيخ كلهم يحبونكم ويرضون عنكم ويقبلون زياراتكم ويتمنون لكم من هذه اللحظة رضا الله ورضا رسوله وأن تعودوا كلكم وأنتم مأجورين وأنتم مباركين بارك الله فيكم أحكي قصة كان الشيخ يحكيها دائما أتبرك فيها كان يحكي لنا أن شخصا جاء زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعدما انتهى من الحج والزيارة إن قيل زرتم وبماذا رجعتم فما فماذا رجعتم فماذا أقول إن يا أكرم الخلق ما أقول قال بكلمة اللهجة ما أقول هذه اللهجة أظن أنها سودانية إن قيل زرتم وبماذا رجعتم يا أكرم الخلق ما أقول قال سمع صوتا من داخل الشباك قال قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع مع الأصول أنتم أيضا فروع للفيضة اجتمعتم مع أصل الفيضة ومنبعها وعاصمتها فراح مرحبا بكم الله يرحب بكم ورسول الله يرحب بكم وشيخ التجاني يرحب بكم والشيخ إبراهيم يرحب بكم وخلفائه جميعا وأولاده كلا وما أعظم من يرحبون بكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي مان لين دي نوي بو باخ <coughs> مان غي سانت يالا ميغا خامني مو ني ديمبل با ماي ني جوتاي تاي أن اك بيت بيس تاي بي أن خامني مو ني غنونا ايتل تي ادينا ناخ مو غنونا ايتل باي مو تيكو سي سيني لوخو ان كو سي سيني ندود اي خلفا ام غادو كو dalee ci première xalifaam Seydi Ali sise xalifaam cheikh alxaaji abdullah suñ mag ju baax ja ak cheikh alxaaji ahmad ibrahim ñes bi nga xam ne mu fi nekk fi mu ne nii ki nga xam ne du dara nee na du dara lu may taalibeeb bàyyi dara newut ci moom lu ahmadu rek la leneen lu ngeen ko bëgg a def yéen a baax rek def ko ko jiital ko waaye lu ne yéen a ko gën a man loolu la wax te dafay wax toujours nañ ko ko waxal ba yàlla defee mu toog la mu wax mooy muy mooy li bëgg de mooy bëgg na am na mbir yoo xam ne di mébét na ko bëgg na ñu miraas bàyyi ci kanamam bëgg na ñu ubbi jumaa ji ci kanamam bëgg na ñu def ziyaara bi muy ziyaara international comme ni ma ni mu ci leetar daaw ñaar yi nag yàlla def na ko sant nañ yàlla benn bi nag dafa laaj liggéey danañ ci jóg liggéeyee ko majlisu shura bi bu soobee yàlla Euh, kilifa yi danañ ko taxawal buñ ko taxawalee première lu ñu xalaat mooy nu ñuy def ba ziyaara bi ñu dox ko wax ko tukkil ko ci àddina bi yépp ba ñëpp xam ne Baay mooy kenn ki nga xam ne moo eyoo ziyaara te képp kuy taalibeem wala nga ci moom danga war foo mën di nekk bu bés boobu jotee nga sant yàlla ci moom nga def ci sa ziyaara loo ci mën di mën ziyaara du pour xaalis ziyaada la dañ ko def pour bëgg may nit ñi occasion ñu bay ci yoonu yàlla bi nga xam ne moom la dénk baay loolu moo tax boobu point moom danañ ko doxee bi ci kanam kilifa yi dinañ ko waxtaanee waaye man du ma guddal suma wax danaa gërëm ñëpp képp ku def dara ci lii ñi dimbale nit ñi pour ñu agsi fii ñi dimbale nit ñi pour ñu dund ñi dimbale nit ñi pour ñu am ay waruwaay ñëw ñi nga xam ne mooy ay gouvernement yoo xam ne def nañ ci li yombal nit ñi jógee fa ñëw ba fii ñu ngi gërëm itam gouvernement Sénégal gàmmu gi moom ma ne def nañ ci leen war taxaw nañ ci taxawaay bu mag a mag a mag a waa woo xam ne lëj na bi buñ ko paree ba recensé ko danañ ko wax danañ def conférence de presse liñ def yëpp danañ leen ko wax ngeen dégg ko waaye ñu ngi leen di gërëm leen sant ñu ngi gërëm itam président Abdoulaye Wade ndax mooy président yi réew mi ñëw na bàyyi liggéeyam bàyyi iteem ñëw fekkee si bisa baay bi ngir barkeelu ngir histoire bindal ko ko ba nga xamee ne dañuy wax ne dama ko ñaanoon man mu ñëw ci yow yowmul xuds bi bésu al bésu xuds bi Palestine bi mu ne moom daal werante na ci ba sonn waaye lim xalaat daal mooy histoire bindal ko ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo taxaw ñëw bi jumaay baay ji mu julli ci jumaa ji mu ne loolu daal moo ko gënal lépp ci àddina histoire bindal ko man loolu lay def ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp du ma guddal sama wax maa ngi gërëm comité bi nga xam ne ñoom laa doon liggéeyal danaa leen gërëm ci suba gi maa ngi gërëm mbooleem ñi taxaw ci liggéey dëkk bi maa ngi gërëm ñépp di leen sant yee di leen ñaan yàlla di gërëm presse bi presse nationale ak internationale ñun ñëpp gis nañ niñ taxawoo gàmm gi gis nañ ne benn xadas bu toll ni bii amul ci àddina bi moo tax taxawee nañ ko niñ ko war a taxawee nañ ko niñ ko waree waneen ñu ngi ñaan yàlla euh, ñu delloog jàmm ñoom ñëpp am si am ngërëm maa ngi leen di gërëm bi السلام عليكم لكن جو برم غام غام شيخ محمد لمين غبالما ا سغامغو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك ان تهيئ لنا من امرنا رشدا ونصلي ونسلم على بذره الوجود وسر الايجاد سيدنا محمد بن عبد الله الذي كان نبيا وآدم منجدل في طينته الذي أتانا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ورضي الله عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا ومولانا ومددنا وسر مددنا قطب الوجود وعلم الشهود شيخنا ومولانا أحمد التجاني رضي الله عنه ورضي الله عن منبع الفيضة ومسير أنهاره وناشر أسراره ومعلم كل من تعلم تحت حضنه شيخنا ومولانا الحاج إبراهيم ابن حاج عبد الله إنياس أيها الإخوة فنحن لو صح أن نقول لقلنا ما قاله الشاعر إذا لما تعجب عن أمر ما وحاول أن يتكلم عنه فأعجزه الكلام فقال إذا اشتد ما بي كان أفضل حيلة له وضع كفي فوق خدي وأسكت نحن أيضا في هذه الليلة لو كان يمكننا أن نضع كفنا على خدودنا ونسكت فقط لكان ذلك من أجل تعظيم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى هذا الجمال المحمدي انظروا إلى منبر الشيخ إبراهيم حيث كان يجلس والأنوار تشع من وجهه بحيث يراه المقبل والمدبر كل يرى عينه ووجهه الباسم المنير وكل يمتد حسب طاقته أيها الإخوة نهنئكم ونهنئ نفسنا كما قال المتحدث الرسمي باسم اسره الشيخ ابراهيم مولانا الشيخ محمد المامون ابراهيم انياس جماعه بزامو دديبا زامو فارا دا غوديان وند با اياكا زواكا وان دوكا وند زوا مدينه دا دوكان هادرين دا سوكا غا منا مسو مرحبا منا مسو لا لي منا فاتا الله زي بيا مسو دوك بكاتنسو ندنيا ادنا الاخرة مو الماجرين شيخ ابراهيم نه شيخ ابراهيم ابو نديكي سو ازما باين الله ازما مسو ين الله ازما مسو يي تشكين الله اتيمكو جو اتيمكو جونا a haɗa kai a sa soyayya cikin zukatanmu zuwa ga ko'ina cikin jama'a wannan shi ne abin da sheikh ibrahim da yake so mu abin da muke aikata ne a nan wannan fili a wannan hadara ina so an kai ma sheikh ibrahim sakon da ya zo mana daga mutanen ko'ina balle mutanen nigeria saboda kamin wannan lokaci shekara hudu wata, wata shida na je nigeria na zagaya na yi kilomita dubu dari biyar duk inda na je na gayyato su zuwa budin masjidin sheikh ibrahim kowa ya amsa gayyata idan ba mu da wani abu da za mu ci sai godiya kawai godiya wanda ba iyaka muna gode maku muna fata allah ya baku duk bukatunku na zahiri na batiri muna fata allah ya samu cikin wanda za su shiga aljanna tare da shekh ibrahim kama kala لما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ده يبي النبي annabi ya ce shi ga aljanna ka je ka shiga sai ya ce ya ya sanyi da masoyana wanda suna sona saboda kai ba zan iya in shiga kadai ni kadai ba sai ya ce ku shiga ko ko dukkan ku je ku shiga ya fadkhulu sahbal khalili tasabaqu idan فهذا الوعد يتحقق إن شاء الله وبافتتاح المسجد سيتحقق كثير من الخيرات ولكن بعض الناس كانوا يفسرون كلام الشيخ عندما قال بأن المسجد إذا انتهى تنتهي المشاكل نعم ستنتهي ولكن إذا أحيينا المسجد بعد تدشينه بالصلاة فيه والذكر فيه والتلاوة فيه والتعليم فيه والتسبيح فيه فإذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يحقق لنا كل هذه الآمال لأنه يقول ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا إذا بشرى لكم يا من حضرتم افتتاح هذا المسجد العظيم المسجد الذي كان حلما تحقق بكم وبنا فنحن نرجو الله, نرجو الله تبارك وتعالى أن يسجل قطانا دائما لما فيه خير الدنيا وخير الآخرة إنه نعم المولى ونعم النصير هذه قصيدة سنوية أنشأتها بهذه المناسبة أقول فيه أضاء سناء البدر في كل مرصدي وبان جمال المصطفى خير مهتدي وعم ضياه سائر الأفق إنه ربيع رسول الله أفضل مرشدي تبدى فيا أهلا وسهلا ومرحبا بأفضل مخلوق وأكرم سيدي فميلاده قد جد فيه رجاؤنا بنيل الأماني في فخار وسؤددي ففي يب هذا الشهر جاء مخلص كريم السجايا لن تراه بمشهدي نبي صدوق صادق ومصدق أتى منقذا للناس أفخم محتدي جميل كريم باهر الحسن قائد رصين جواد فائق كل أجودي صفوح عن الزلات شهم وماجد أتى مفردا قرما به الكل يقتدي لقد جاء بالإسلام من عند ربه لينشره في الأرض بشرى لمهتدي مبادئه التوحيد والرشد والهدى وتطبيق دين الله أعذب موردي هو الدين عند الله لا دين غيره وقد جاء بالإصلاح في خير مرفدي لقد حاولوا دوما قضاء لديننا وقد فشلوا في حلهم وكذا العقد وكالوا لنا كل الشتائم جملة تشيب لها الولدان والكل يعتدي وقد شنعوا قولا وفعلا وقد بغوا أصروا على الحرمان والبغض والحرد فلو درسوا الإسلام دانوا لفضله وكان لهم نصر من الواحد الفرد وقد فاتهم خير كثير لأنهم تمادوا على الإدبار والبغي والحقد أفضل خلق الله أكرم عابد منير الدياجي أنت أفضل من يهدي ندين لكم بالشكر في كل لحظة ونبقى على الإيمان رغم ذوي العند فما خاب من أنتم إمام حياته يدوم قرير العين من غير ما جهدي يتم له التيسير والهدي والجدى ينال عطاء الله في كل ما قصدي فما عرف التاريخ مثل نبينا ولا مثل للإسلام دين النبي الهدي ألا اعتصموا جمعا بحبل إلهنا تكونوا دواما في نعيم مؤبد ونجني ثمار الحب في الله ربنا نراقبه حقا بغيب ومشهد سلام على كنز البرية كلها سلام على من دينه خير معبد سلام على هذا النبي رسولنا سلام على نور الإله المخلد سلام عليه من إمام مسيرنا وذلك رمز الحق دون تردد سلام عليه من مدينة كولخ مقر خليل الله حب محمد إلهيا فاحفظنا وقو رجاءنا وخيب رجاء المدبرين عن أحمد أيا ربي يا قهار حقق طموحنا وكن حصننا رباه من شر ما يردي وعمر لنا يا رب مسجد كولخ بذكر وتسبيح إلى غاية الحشد وتبقيه رمزا للسلام حقيقة يكون مدى الأيام أمنا لمرعدي وتجعله يا رب للعلم معقلا وزينه بالذكر الحكيم وبالورد وحقق رجاء الشيخ فينا جميعنا بجاه النبي المختار أكرم من يهدي وجاز إلهي من سعى في بنائه وتعطيهم الآمال يا صادق الوعد بجاه أبي إسحاق برهام قدوتي فقد كان نعم العبد أعظم منجدي صلاة وتسليم على البدر حبنا وآل وأصحاب النبي المسدد بقدرك والمقدار ما قال طامع أضاء جمال البدر في كل مرصد حق قدره ومقداره العظيم شكرا الحمد لله وبعد فإن المناسبة أعظم ما يفعل فيه هو تذكر خصائص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفضائله مما اختص به دون الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تمهيد إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائص شخصيته الفذة حافلة بالكثير من المواقف والدروس التي لا يمكن لأحد التعرض بسردها في جلسة أو جلسات عدة بل يتعذر ذلك ولكن يمكن اقتطاف جوانب مهمة مستخلصة من سيرته العطرة تستدعي وقوفنا عندها وقفة تأمل للاستفادة منها وإفادة السامعين لقد درجنا في كل مناسبة من مناسبات الاحتفال بذكراه الندة على انتهاج هذا المسلك الخاص عند تناول سيرته صلى الله عليه وسلم وخصائص زيادته على المألوف لدى السامعين سائلا الحق تبارك وتعالى التوفيق في اقتفاء آثاره والاقتداء بسنته القولية والفعلية إنه سميع قريب مجيب كمال خلق الخلق اتصف كمال خلقه صلى الله عليه وسلم بأربعة أوصاف السكينة التي تصحبها الهيبة له صلى الله عليه وسلم فقد كان مهيبا في النفوس حتى ارتعت حتى ارتاعت رسل كسرى من هيبته مع اعتيادهم على صولة الجبابرة في حق من يرسلون إليهم من يرسلون إليهم لكنها هيبة يصحبها التواضع والسهولة لقد جاءه إنسان ونظر إليه بمجرد ما رآه ارتعدت فرائصه فقاله النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة محبوبيته صلى الله عليه وسلم في قلوب من صحبهم استحكمت فيهم محبته حتى لم يجافه مصاحب ولم يتباعد منه مقارب وكان أحب إليهم من الآباء والأبناء بل من أنفسهم حسن قبوله صلى الله عليه وسلم كان قبول منظره مستوليا على القلوب استئلاء يستعبد يستبعد معه نفور يستبعد معه نفور منه أو وحشة في مجالسته ميل النفوس السليمة إلى متابعته وموافقته لكون توجيهاته وإرشاداته تناسب ذوي القلوب المخلصة الصافية ويرونها مكملة فيهم ما نقص منهم خصائصه صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهذه الخصائص منها ما, خص ما اختص به لذاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومنها ما اختص به في الآخرة ما اختص به في الدنيا العهد والميثاق على الأنبياء من الله بالإيمان به ونصرته وأخذهم ذلك العهد والميثاق على أممهم قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثانيا كان النبي يرسل إلى قومه خاصة أو إلى أهل بلدة أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أرسل إلى الناس كافة إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ختم الله ختم ختم الأنبياء ختم الأنبياء به صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام عليهم الصلوات والسلام قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ويقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا العاقب الذي ليس بعده أحد الرحمة المهداة للخلائق أجمعين مؤمنهم وكافرهم إنسهم وجنهم رحمة مهداة خاصة للمؤمنين قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة عامة للخلق إذ قيل له صلى الله عليه وسلم ادعوا الله على المشركين فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم إنه من أجله أمهل عصاة أمته ولم يعجلهم الله بالعقوبة إبقاء عليهم بخلاف من تقدمه من الأنبياء والرسل فإنهم لما كذبت أممهم عوجل مكذبهم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون واعلموا أن فيكم رسول الله استدل بهذه الآية بعض العلماء على معيته لأمته صلى الله عليه وسلم حتى بعد انتقاله إلى البرزخ الأعلى لورود ورود كلمة اعلموا للتنبيه إلى أن ذلك هو الواقع فعلا لم يقسم الحق تبارك وتعالى بحياة أحد من البشر إلا هو صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه العظيمة قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون والإقسام بحياة مقسم به صلى الله عليه وسلم يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم به وهو الحق عز وجل نداؤه بوصف النبوة والرسالة قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونهى أصحابه عن مناداته باسمه فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ثم يتبع هذا الأمر الرباني ثم يتبع هذا الأمر الرباني بقوله عز وجل عز من قائل فليحذر, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بخلاف ما خاطب به الأمم السابقة سالفة أنبياءها قالوا يا موسى ادع لنا ربك يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء إنه صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم يقول صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وفي رواية أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه والفواتح هي استخراج المغلقات التي يتعذر على غيره الوصول إليه <clears throat> والجوامع هي المعبرة بها عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة وخواتم الكلم هي الكلمات التي لا يخرج عنها شيء عن طالبه مع عذوبتها وجزالتها واستيفائها مع حسن الوقف ورعاية الفواصل ومن نماذج ما أشرنا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأشنان المطس المشت اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك إن الله حسن طيب لا يقبل إلا طيبا حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات من من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس خلود معجزة القرآن وحفظه كانت معجزات الأنبياء قبله وقتية انقرضت بانقراض زمانها لم يبق منها إلا الخبر بخلاف القرآن الذي هو أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم المستمرة إلى قيام الساعة وحفظه الله من التغيير والتبديل والتحريف قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعصرنا الحديث باكتشافاته المذهلة كاشفة يوما بعد يوم عن مدى حجية القرآن على الأجيال السابقة واللاحقة وبقائه معجزة خالدة شاهدة على عصر على كل عصر إلى قيام الساعة الإسراء والمعراج أسري به ببدنه وروحه يقظة إلى بيت المقدس بإيليا ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله وتضمنت هذه المعجزة كرامات كثيرة منها تكميله ربه وفرض الصلوات الخمس ورؤية آيات الله إمامته للأنبياء في بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إنه السميع البصير ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما اختص به في الآخرة دون الأنبياء و... عليهم عليه, عليه وعليهم الصلاة والسلام أولا الوسيلة وهي علم على أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله وهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا لله لي سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة المقام المحمود الذي يقومه يوم القيامة فيحمده الخالق عز وجل وكذلك الخلائق قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو مقام الشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عذاب ما هم فيه من شدة ذلك اليوم وله شفاعات أخر يوم القيامة منها شفاعته في, افتتاح باب الجنة يقول صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول ربك ربك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك شفاعته في تقديم من لا حساب عليهم في دخول, في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت قال مع كل ألف سبعين ألفا الشفاعة في من استحق النار من الموحدين أن لا لا يدخلها الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار الشفاعة في رفع درجات ناس في الجنة وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء وصل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء لنا وظالم وولي الخلق رحمة كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء ربنا وظالم رحمة لم يساوك في علاه وقد حال ثنا منك دونهما وثناء يا ربنا وظالم على ما وهو للخلق رحمة وبما إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء يا ربنا وظالم على ما الرحمة وبما أنت مصباح كل فيل فما ضر إلا دوئك لا أضواء ربنا وظالم دما وولي الخلق رحمة وبما لك الغيب ومنها لآدم الأسماء يا ربنا رحمة لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات ولا أباء وما مضى فترة من رسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء يا ربنا وذار مداما وولي الخلق رحمة وبما تتبع بك العصور وتسمها بك الألياء بعدها الألياء ظلا وهبصا يخدو شؤدد وفخارنا أنت فيه يتيمة لا أصماء يا ربنا وذا لمداما وللخلق رحمة ومهيا كسمسم كمضيئنا أسفر عنه ليلة لا ما يا ربنا وظالم على ما وللخلق رمضا وظلما وقد كل بيت نار وفيها كربة من قمودها وبلا وللخلق رمضان وظلما

وأتر قومها بأضل مما حملت قبل مريم لا أدرى يا ربنا وذا والمدما وللخلق رمضان وشم تدخل أملاك إيس ودهده وصفتنا بقولها صفا وظيفة ورافع رأسه وفي سالك هكي أقول شؤددنا إماء ربنا ولمنا ما هو للخلق رحمة وظيفة السماء وتدلت سر النجوم إليها فأضاءت بضوئها لا أرجاء وطرأت قصور قيصر بالروم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن أخلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقدار العظيم نجي ngi sant ميغا mi nga xam ne <clears throat> moo ñu baaxee yontu yàlla Muhammad ci muy bisa fukki fan ak ñaar muy nit koo xam ne bi mu ñëwee àddina bi yëpp la soppi soppi na ngëm yi soppi na jëfalante yi soppi na dund bi dund yi soppi na lépp loo xam ne fekkoon na fi fekkoon na ko fi yonentu boobu sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne màkka la juddoo màkka la yoro màkka lañ ko yónnee màkka la commencé di doxal liñ ko yónnee gars yi ne du fi am bi ñu waxee ne du fi am nag dañoo fàtte ne yàlla mooy ki nga xam ne moo ko yónni te yàlla lum mu bëgg mooy loolu mooy am ñu daal di koy génnee Makka mu dem Medina ba ni mu demee Medina foofu la sampee lislaam daal di fa njëkk tabax mooy jumaa moo tax mbiram jumaa lu fonk la loolu tax bàyyi gatoon ci kanam pour tabax jumaa joo xam ne dana dëppoog juma ji nga xam ne mooy dëppoog ngëmam ngëmam ci yàlla ak ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi bi nga na Medina lim njëkk a commencé du tabax kër waaye jumaa la tabaxoon parce que jumaa mooy muntalaq bi nga xam ne lépp loo nar naa jóg foofu lañ koy defee fa la ñuy defee julli yi juróom fa la ya, fa conseil de guerre fa la ñuy defee seen ya fa la fa la ñuy eh, eh, eh, tasaare ndono ya lépp loo xam ne lislaam a ngi koy def ti ci jumaa yi mooy place bi koy defee moo tax yàlla fonk jumaa lool jumaa nag mooy néegu yàlla bi nga xam ne yàlla wax na ci lu bari wax na ne wa anna al masajida lillahi falaa tad'u ma allahi ahadan na ngeen xam ne jumaa yi nag yàllaa ko moom bu leen oo benn dendaka dendale ko tur ak yàlla turu yàlla bi wax dëgg yàlla ba mu koy wax booba 1958 la waaye joxe na ko tey gis ngeen tey lépp loo xam ne mu ngi aju ci jumaa ji ak lépp loo xam ne mu ngi aju ci gàmmu gi lépp a ngi niru tarab yonent bi sallallahu alayhi wa ngeen xoolee tant bi mu ngi niru tarab yonent bi bu ngeen xoolee jumaa ji ci biti mu ngi nuru tarab yonent bi bu ngeen xoolee jumaa ji ci biir mu ngi niru tarab yonent bi lépp loo xam ne mu ngi nekk fii rek mu ngi nuru taarab yonent bi tey itam fi la jullit ñi dundee dëgg-dëgg di tudd seeni borom ndax seen borom mooy ki nga xam ne moo jar di tudd moo jar a am moo jar a yaakaar moo jar a dem ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu tabaxee juma am ji foofu la commencé di jàngale fa la daan commencé di julli fa la daan commencé di def lépp loo xam ne l'islam bi soxla na ko ba nga xam ne jumaa ji nekk na pool euh, boo xam ne lii xew lépp foofu lay déparé même ñi ba yonent bi daan yóbbu ci xee xeer yi ci xeex yi xare yi foofu la leen daan rab euh, euh, rabbale seen mbooloo foofu la leen daan utal njiit loo xam ne moo leen di jiite loolu yëpp foofu la ko daan defee bu dee takk sa itam foofu la lépp loo xam ne ñu ko doomu aadama yaa ngi koy soxla rek foofu la woon ci jumaa ji kon jumaa am na solo am solo goo xam ne ku tabax jumaa ngir yàlla def nga lu rëy a rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mu wax na ne ku tabax jumaa lu day ni joqa picc yàlla dana tabaxal nekk ci aljanna kon jumaa ji bu fekkee ne joqa picc la yàllay tabaxalee nekk ci aljanna kon jumaa ji képp koo xam ne bokk nga ci wala nga bokk ci liggéey bi wala nga bokk sax ci ñu doon ane suuf si wala nga bokk ci yoon investissement bi képp ku ci bokk rek da nga xam ne tey yàlla denceel na lam koom moo xam ne dana la ko jox fii ci àddina ba nga gis ne taral na la waaye boo demee àllaaxira ci lay gën a euh, euh, lëw ci lay gën a yaatu ndax foofu la yàlla joxe jox goo xam ne dootu ànd ak xañe ndax fii àddina yàlla lum la jox lum bari bari daf koy euh, jël boy boo booy jóg àdduma àddina ba dem alaxira doo yóbbaale dara waaye fële nag moom la nga fa jiital boo demee da nga ko fay fekk te fay des waxtu wu nekk yaa ngi koy xeexoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy njiitu ñu gëm yàlla yi mooy jiitu mboolem yonent yàlla yi mooy jiitu mursaliina yeeg ambiya yi ñoom ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy seen moo tax yàlla wax jaar alquran ne bu ma bu ma yónnee xes naa yónnee ab yonent boo xam ne ndax da ko gëm ku mu war a yónni yonent dafay jaayante ak yow ci loolu na ndax ki ma nar a yónni si boo ko gisee da ko gëm boo ne waaw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ne nangu naa ak yonentam te ñëwagut rek yàlla daal lay def ngay yonent ku ko nangul nag duñ la ko def kon ko nga xam ne mooy symbole yonent yëpp képp koo xam ne yàlla jox na ko dara ci risaala ak ci nubuwa yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la ci wàllam la jël jox la ko moo tax bàyyi di wax ne fa aayu jamii rusuli aayu muhammadin mu ne mbooleem kewt kemtaani yonent yëpp kemtaani yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam fa minhu ilayhi kullu shay'in muammama mu ne ci moom la jógee ci moom lay dellu lépp loo xam ne yonentu ba koy joxe ci foofu lay jógee foofu lay dellu kon nag yonentu boobu sallallahu alayhi guddi guñ koy màggalee jar na yàq nelaw jar na itewoo jar na am lépp loo xam ne da ko mën a def pour gën a mag feeñal màggal yonentu bi sallallahu alayhi nga def ko ndax am na benn waay boo xam ne li ko rammu dafa daan nekkoon nit ku sàggan waaye bu jega jéggi wan tànk rek bala mu ko teg rek dana julli ci yonent bi waa ji daal di ànd ak doomam ci benn gàll ñu dem ba ci biir géej gi doom bàyyi ji gaañu bi bàyyi ji gaañoo mu gis mu lëndëm kërës muy jooy doom ji di jooy fi mu nekkee di jooy ba neraw gént am ku ñëw dal di muri baayam daldi di koy raay rek kanam gi mel ni jant bi njolloor mu daal di kooka dem mu yeewu ci gént gi mu ñëw daal di muri gis baayam ñuul gam ñuuloon dañ na te leer gi itam dellu si na mu xam ne ki ko mu gént beneen yoon ne gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ko maa ràmm si woon sa baay ndax daf daan bari lu muy julli ci man moo tax bi mu amee soxla man maa ko ràmm kon yonent boobu julli ci moom sallallahu alayhi wa lu am solola moo tax guddi gi képp ku toog fii soo amul boo mënta bokk ci ñuy woy na nga téye sa kurus di jàng ay salaatu ala nabi ba ca gën nag mooy suñ salaatu bi salaatul fatihi yow ci jàng lu mu bari bari ci guddi gii daf lay nekkal comme moo xam ne du jeex yowmal qiyaamati kon nañ gën a góorgóorlu ci loolu yonent bi nag juddu ci màkka yaroo ci màkka xamul kenn ku ko mës a jàngal benn baat xamul kenn ku ko xamal dara ci loo xam ne nit ñi war nañ koo xam ba tax na sax moom daf daan wax ne moom ummi yu ummi yu nag mooy koo xam ne du bind te du euh, euh, jàng mu nekk ci loolu ba nga am na ñeent fukki at di dem xaari xiraa moom xerem yi xam ne éefar yaa ngi jàmmu bañ na leen parce que xam na ne yooyu duñ war a du duñ duñ elloo jaamu mu ne man xam naa ne sama borom euh, moom rek moo jar a jaamu booba xamagul naka lay àggee ci yàlla boromam waaye mu dem xaaru xiraa bu demee foofa dafay toog rek di xool jan eh, eh, eh, asamaan si di xool suuf si di fàttaliku di xam ne lii nga xam ne mooy kéemtaan yii am na borom boo xam ne moo ko def borom boobu rek moo jar a jaamu waaye ka naka la koy jaamoo kañ la koy jaamu loolu yàlla moo ko may gannaaw ga yàlla moo ebal jibril mu jëw ci moom daldi ne ko iqra yonent bi ne ko ma ana bi xaari jàngal mu ne ko man jànguma mu njett ko ba muy bëgg a dee comme ni mu ko waxee bàyyi ko ne ko jàngal mu ne ko ma ana bi xaari jànguma mu njettaat ko ci yoon ñetteel bi mu ne ko maada aqra lan laay jàng mu ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam alquran commencé nag di wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi sax bi ib jibril ñëwee di malaka ñëw feeñu ko te tiitu rafut ba nga xam ne wax na ko jàngal mu bañ kooku bu doon nit yi rek bu keroogee bu gisee malaaka mi kenn dàq ko kenn du ko gën a daw waaye nag moom gim gisee malaaka mi ne ya-, ko yoni ndax moom xam na ne boromam am na lum seq ak moom te loolu dana ko feeñal si moo mu yoni jibril jibril na ko jàngal bi mu njartu ko mu bañaat mu njartu ko ba ci yoon mu ñetteel mu ne ko iqra bismi rabbika ci la alquran commencé wàcc li njëkk a wàcc ci alquran mooy iqra jàngal moo tax yonentu bi sallallahu alayhi na nga taallamul ilma min almahdi mahdi ila al lahdi na ngeen jàng xam-xam ci lalab liir ba ca buntu bàmmeel af diggante ñaari diggante yooyu feeg mu ngi am nit kan koy yek di ko dund bu mu di jàng di jàng bañ dugal ko ci bàmmeel bi njàng nag moom boo ko defee daf lay defaral sa diine daf lay defaral sa jàmm daf lay defaral sa liggéeyal sa borom ci liggéey boo xam ne buñ xam la bu wóor la kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi jooju ba pare ne ko nañ wàcc ci suuf mu njàlli wàcc ci suuf jibril këddaa tànkam am ndox ball jibril ne ko dama lay jàngal njàpp defal na may def mu raxas loxoom yonent bi roy ko mu raxas mboolem cër yi eh, njàpp yi yonent bi roy ko ci loolu bi mu paree mu ne ko lii la ñuy préparé pour dugg ci julli mu daal di jóg kàbbar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kàbbar ci wetam nday xadijatu comme ma nga fa woon moo njëkk a gëm yàlla moom itam gannaaw bu yonent bi julli googu moom yëkk moom rek moo njëkk julli Eh, ci ni ko yonent bi defee ak Seydina Ali ibn Abi Talibin kooku itam ci ngoneem la ko yonent bi amee woon ba nga xam ne moom lépp loo xam ne yonent bi mu ngi koy def rek moo ci jiitu ndax moom mooy doomu yoontu bi mbokkam la waaye doom la ci moom bi mu gisee yonent bi sallallahu alayhi wa mu julli mu ne ko yoontu bi jàngal ma lii yonent bi daal di koy jàngal mu julli Seydina Xadijatu jàng ko julli ci la julli tasaaroo ci mboolem xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy loo xam ne buum la goo xam ne cat la njëkk li mu ci loxol yàlla catu ñaareel bi mu ngi ci loxo euh, jàmm bi su jàmm bi téyee mu dëgër di dem borom bi di ko xacc muy ñëw ci moom ba jegeñal ko bu su ko jegeñalee dana ko dindil kiiraay digganteem ak moom moom la bàyyi di wax ci bayti ba ne su boo jàppee ba pare nga jóg kabar daal jang jàng sa faati ak saar daal eh, ruko daal sujud sujoot bi nga sujoote rek eh, daggal nañ la mboorem diggante yi nga xam ne moo daan gàllankoor nit ki bur mu àgg ci yàlla ida kunta min qabli rukooy min baadi rukooy murattilan wa tasjudu min ruko rukoai laqad تويت عنك المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبر وعظمي mu ne boo rukkooyee ba jógee ci rukkoo dem di sujjóot ba booba jege nga sa borom bi ba àgg nga sax ci sa borom bi ndax lu tax mooy jaam bi yow ci suuf la ko bindee yàlla dafa jël ci suuf ci la bindee doomu aadama yi doomu aadama boobu nga xam ne ci suuf la ko yàlla bindee mu fonk boromam ba di ko jaamu ba jaamoo ko jël jëm bi nga xam ne moom la gën a fonk mu teg ko ci suuf mu muy wax ne dafa mel ni day wax sama borom ne man dellu naa fa ma jëlee woon bi mu delloo nag fa nga jëlee woon loolu tam yàlla daal di koy xeewalal koy ubbil eh, eh, payem ba mu dugg ci topp ca duggee dootu dootu génnati mu daal di julli googu nag mooy li lislaam njëkk a indi gannaaw gi yàlla sant na ko koor gannaaw gi mu sant ko azaka gannaaw gi mu sant ko aj gannaaw gi lépp loo xam mu sant ko jihaad ak lépp loo xam ne day dëgëral islaam yonent bi sallallahu alayhi santoon nañ ko te buñ ko santee rek mu sant ko xeetam wi ndax dafa bëgg moom lépp lu mu am xeetam wi am ko moo tax muy wax ne képp koo xam ne bëgg na jullit ñëpp wala nit ñëpp ci àddina aljana la jëm lu may ñu ndax am na ku bañ dem aljanna yonent bi ne ko waaw kan la mu ne koo xam ne bañ na ma topp kooku moo bañ a dem aljanna waaye ku ma topp rek aljanna nga jëm kon aljanna buntu baa nga noonu buntu bu màgg la te yàlla wax na ko ci alquran ne na li xam ne mooy eh, eh, eh, lim jal ñiy julli mooy aljanna yi hum fiha xaaliduuna fa la ñuy beel kon julli lu am solo la parce que bi nga taxawee yaa ngi fàttaliku ki nga xam ne mooy borom ahadiyatu moo fi nekkoon bi fi dara nekkut moo fi des bi fi lépp jógee te bi fi lu nekk nekkee itam moom rek moo fi nekk bu defee bi nga taxawee yaa ngi taxawal ahadiyatu googa bi nga rukkooyee yaa ngi fàttaliku ahad moomu ak ki nga xam ne moom la feeñalee ay mbiram ci moom muy muhammad moo tax yàlla bàyyi di ko wax ne usalli salli ala hadrati sina na nga julli ci nga xam ne mooy ñaareel du ñaareel ci ak yàlla du ñaareel ci ay eh, may may yàlla yoo xam ne dafa yàlla daf ko jagoo waaye ñaareel la ci lépp loo xam ne yàlla mën na koo joxe ak lépp loo xam ne yàlla xam na ko yàlla xamal na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga jógee ci rukon bi nga nga bi nga sujootee dafa mel ni yaa ngi boole say oom say tànk ak sa jëag say loxo lépp yaa ngi ko teg ci suuf si mu mel ni yaa ngi ca ahadiyatu bi nga xam ne dara génnu ca te lépp loo xam ne mu nga ca biir lépp lu ne nag mu nga booba foofa nga nekk ci payab ah, ahadiyatu foofa loo fa ñaan yàlla jox la ko loo fa laaj yàlla jox la ko bi nga xamee ne nag nit ki yàlla baaxee na ummatu muhammadin julli googu qurayshin ne yonent bi lim indi ni du fi xew mukk ci adina ñu nek fi diko bàyyi muy suñu sobetal suñu xeram yi di len saga ka di len wax lu bon ba pare di jullil ben yàlla ñun itam duñ ko setan duñ ko bàyyi mukk lolu am waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamna ne borom bi dana ko matalel li nga xamne mom la ko digon moy lan moy dana ko mattaleel diine am sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nekkul nag dañu nag di bëjanteeg ñoom te itam ak njàmbaar gu mat da leen woon ndax bi ko yàlla waxee ne ko ool ool sa mbokk yi ñu ñëw gëm li nga gëm daf leen a dajale defal leen invitation ñu lekk ba suur mu ne dama leen a oo ci loo xam ne lu lay leen di defar la tey ak ëllëg mooy lan mooy ngeen gëm seen borom moom kenn la baayam baay taxam abu lahab moom moo ko njëkk a saaga ne ko tabban laka alihada daawtana toskara ñeel la ndax li tax nga ooñu waaye yàlla moom moo ko tontul yàlla ne tabbat yada abi lahabin wa tab maa agna anhu maaluhu wa maa kasab yàlla ne abu lahab kay la ay loxom toskare abi lahab kay alalam ji du ko jëriñ dara ndax safara lay jëm kon yàlla dëggal na loolu abi lahab dee na ci kéefar te safara la nekk waaye li muy nekk nekk safara bésab altine bi nga xam ne ci la yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam dañ koy oyofalal safara si bam nekk ci kaw waaye tànk yi rek mooy laal safara si waaye yuur gaa ngi ciy bax ndax loolu waaye dana yëg ak oyof koo xam ne mu ngi ko yëgee ci ni ni ko eh, ni yàlla ko fayee lan keroog bi yonent bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam jéebeer bi ñëw ne ko aminatu jur na doom ju rafet mu ne ko ba ba naa la yàlla ba yàlla googu gum ko ba woon yàlla looloo tax mu daal di eh, ñu di ko oya falal yowmal bu jot di ko oya falal waaye kër bi nag daal ne su fekkee ne Abu Lahab moom yéefar la dee nee ci kéefar yàlla di di ko oyofal yow altine kon jullit bi nga xam ne gëm na ne ki ñëw yow mu altine mooy yonentam gëm na ko ànd moom kon kooku kon lan la ko yàlla di defal dana ko defal lu nekk dana ko jox lu nekk moo tax yonentu bi sallallahu alayhi wa bi mu nekkee Makka di oote bët bu set mu dugg ci xeeba euh, bu bu gisee ay gan yu ñëw Makka mu ñëw seet si leen di wax ne man maay yonent bi nga xam ne man la yàlla yónni su ko defee ñu saaga ko dóor ko daal di koy soril ba mu léeg-léeg sax ñu dóor ko ba mu xam bu ximee rek da bu bu jógaatee daal di delluwaat di wax lañ daan wax ba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla boole na ko nag ahlu yasriba waa a Munawara yi nga xam ne ñoo njëkk jaayanteeg moom ñu njëkk a ñëw nekkoon nañ juróom benn ca déwén sa ñu yokk di yokk di yokku ba mat juróom benn juróom benn fukk ak nangam yonent bi nag toog di jaayanteeg ñoom di wax di leen wax ne man dama bëgg bu fekkee ne waa Màkka génne nañ ma ngeen fat ma ñu ne ko dañ daañ la faj daañ nangu nañ la fat te dañ la wattu ni ñuy wattoo suñu bopp ak suñuy jaboot booba sa Abdullah ibnu Abbas ma nga fa Abbas bàyyi Abdullah ibnu Abbas ma nga toy woon jotaay ba mu ne leen e yéen waa ba su fekkee ne li ngeen di jaayante ak yoon bi dëgg la ci yéen dañ leen leen ko bàyyi nga yóbbu ngeen yóbba mu mu Medina waaye su fekkee ne defu leen ko xanaa nar ko yóbbu ba Medina ngeen koy bàyyee ay noonam bàyyee leen ñu suñ doom ji fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leen jox ay charte nag wax leen lan mooy lislaam ñoom ñëpp ñu jaayante ba wax ndax na ko wax ko ne lépp loo ñu digal ñun dañ ko def ci la yonent bi sallallahu nangu ne bés bu ñu Quraysin génne ci yéen lay fatu si moo tax biñ ko génnee Màkka Medina la dem te Medina gi nga xam ne fi la dem diggante Medina ak makka borom xam-xam yi ñu ngi werante ci kan moo gën ñene ne Màkka moo gën ndax fa Kaaba ga nekk ñi ne moo gën ndax fa la yonent bi nekk waaye Baay def daan wax ne ñaar yu nekk yoo xam ne am na ngërante gu ñuy def seen diggante rek fa yonent bi féetee mooy la gën kon ganaaw Medina Medina la féetee foofu mooy gën moo gën mboolem suuf moo gën mboolem asamaan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne mu ñu ngi ko euh, dàq mu génn dafa ju euh, xool màkka génn màkka dem Medina dafa xool màkka ne ko yow yow sama borom wallahi sa dëkk bii bëgg naa ko te suma mbokk yi buñ ma génn wutoon kon de wallahi du ma jógee fii di dem feneen léegi nag man maa ngi génn ci sa dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bi nga moom laa gën a bëgg ci sama xol kon maa ngi lay ñaan nga tànnal ma dëkk bi nga gën a bëgg yow sama borom moo tax yàlla tànnal ko ma Madina a moo ñuy werante ne Madina ak Makka gën ku ci banaa ci gën ñi wax ne Makka Madina moo gën aaya jooju ci lañ dëgg ba ne Madina moo gën Makka yonent bi nag sallallahu alayhi wa bi mu demee Medina def na fa juróom-ñetti at juróom-ñetti at yooyu lislaam baa ngi tasaaroye tasaaroo tasaaroo goo xam ne dara mosu koo mel bi mu fa toogee juróom-ñetti fa at juróom-ñetti at ci fa jógee ànd ak ñoo xam ne bari ga ëpp na yoon mu daal di ñëw daal di si makka daal di dugg makka ba muy dugg makka ñëpp a ngi jàq di tiit waaye moom sallallahu alayhi wa sallam bi mu duggee màkka dafa jett boppam ndax yër euh, euh, xeeras boromam mi nga xam ne moo ko defalal loolu wax nañ ne ab ab abu sufyaan dafa gisoon safara yu bëree bëree bari ci genn guddi xamutoon lan la fekk boobu xare yi nga xam ne ñu ànd ak yonent bi di dugg si màkka la abu sufyaan dal dox rek ba gis abbas ne ko abbas li lan la mu ne ko toskare ñeel na la yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi ñëw ak makka ak xare boo xam ne amul amuleen lu ngeen ko def de dara du la ci musal lu may ñëw tuub dugg ji lislaam soo ko defulee yoon de yow sax doo mucc mu ne ko kon yóbbu ma ci moom mu daal di war ci baxlaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom abbas daal di togg euh, euh, euh, abu abu ci gannaawam bi mu ko defee di daw di dugg ci jëm ci yonent bi fi mu nekk yonent bi ma ma ci néegam fi muy romb mbooloo mu romb mu romb rek ñu di ko mooloo ko ci ci ci batu bi mu ñëwee ba romb Seydina Omar ibn Khattab Seydina Omar ne kii kan la kii day Abbas la doon bàyyi yonent bi war gëlëm ak yonent bi am na ci droit waaye ki mu togg nii kan la noonam yàlla bu mag bi Abu Sufyaan la kii day duma ko bàyyi mukk mu àgg ci yonent bi borom yërmaane gu màgg googu su àggee daf koy baal daf koy yërëm moo tax xaaral ma ñëw dem tàggu ji bi ne ko may ma ndigal ma dagg baatam Abu Sufyaan yonent bi Abbas tali na ko gis nga kële di dem Omar ibn Xataab la ma nga jëm ci yonent bi sallallahu alayhi di ñaan ndigal pour dagg sa baat mu ne ko labalil gilem gi ñu gaaw àgg bala ñoo Omar ñu agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi na ko Abu Sufyaan ba léegi gëmuloo ne man yonent yàlla la mu ne ko wallahi ba léegi day am na lu nekk sama xol ci loolu mu ne ko li nga gis yépp ci li ma yàlla defal te yow yaa ma doon xeex jàpp ne mënoon nga ma dara loolu war na na la e, waar ba nga gëm waaye nag abbas yobbul sa gan gi bu ëllëgee nga delloo si ko abbas daldi koy yóbbu fa mu dal bi ci guddi gi nag mu toog di waxtaan ak boppam ne wallahi kii li mu nekk nii du loo xam ne nit doomu aadama ma ko faggul boppam ndax bu fekkoon lu ñuy faggul bopp la ñun kenn mënu ko faggul sa bopp lislaam nag daal di ko dugg bi mu xëyee ñëw yonent bi ne ko loo wax na mu ne maa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وصفاء وأتى الجده وقد فصله وبها من فصال حلاب رحاء إذ أتت به ملائكة الله فظنت بأنهما قرناء ربنا وزاد رحمة به ومن الوجه دلائب تصلى بحلا أحصاء مغربا وفارقه كرا وكان لديها ساويا لا يمل منه ثواء هوى وضلال لا تقد ببراه فوحي من الله الجليل جلاله على أفضل الأمثال وهو تلاه الله الله شريعة لذا الوحي غير المصطفى وهداه أحب الرسول المصطفى القرم إنه تشرب قلبي حبه وهواه الله الله, الله فما الحسن إلا حسن وجه محمد يناجي ربا وقانت وإني مدى الأيام شغلي مديحا وفكري فيه وقتي صامت وما لد عيش دون نيل وصام واتقى وجودا عليك صلاة الله ثم سلامه مدينة تبقى معقل الأمن والهدى عليك صلاة الله ثم سلام لا إله إلا الله الله عليك صلاة الله ثم سلامه وترفع من يعلي بنا والرأس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البأس والنقم هنا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير القلب كلهم وبان إيوان كسرى وهو مطلع شمل أصحابك غير ملتئمين ولا يصلي ويسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم ولا يصلي ويسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم وساء ساوة أن غاضت بحيرتها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 والحق يظهر من معنى ومن كلمة ولا يصلي وسلم دائما أبدا في بك خير الخلق كلهم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تسمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا بك الغير من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم معجلا يقومي ولا يصلي وسلم دائما أبدا بك الخير الخلق كلهم وبعدما عاينوا في الأفق من شوب منقضة مثق ما في الأرض من صنم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على بك القير القلب كلهم حتى غدا عن طريق الوحي ملتهم من منهزم من الشياطين يقفو إذر منهزم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على بك القير القلب كلهم كأنهم هربا أبطال أبرات أو عسكر بالحصى من راحتي رمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا الخير نبذا به بعد تسبيح بطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمين ولا يصلي وسلم دائما أبدا عليك الخير خلق كلهم جاءت لدعوتي الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ولا يصلي وسلم دائما صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صراط الله ولا إلى صراط المستقيم وعلى آله حق المقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا صلاح الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آل القدر قدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم الحمد لله رب العالمين ñu ngi jeexal Medina Baye nag يوم yow mal xursa ajjuma ñu taxaw jàppale Palestine àdduna Nous ñu dalo juma ji ci président war président OCI ak ci délégation Mohamed Sissoura du Maroc Mahmoud Abbas euh, président Palestine mbooleem adduna bi teewlu 70 nationalité ngir ut ci yaakaar ji nga xam ne fekk nañ ko ñi ngi dellu ak bépp yiw ndax li Cheikh Ibrahima Niass waxoon wa maratan uxra tarona ajaban danañ gis yeneen kéemaan beneen yoon yëpp sant yàlla la ñi ngi tàggoo ci gàmmu gi di wax RTS jërëjëf ak Babacar Diagne yàlla dimbali leen a seen jafe-jafe te def Sénégal jàmm te amuñ sikki ne àddina bi nañu Medina Baye ci mbooleem waru waay ak yoon yi asalaamaaleykum wa rahmatullah qalladatha ya rabbana wa zalima lama wa lil khalqi rahmatan وذبا وهبص يخدش شؤدد وفخارنا أنت فيه يتيمة لا أسماء يا ربنا وذا لمرما وللخلق رمضا ومهيا كسمصم كمضينا أسفر عنه ليلة لا يا ربنا Ima da mwa wa eh, eh, eh, oh, le ليلة المولد البعث أشد الناس في الهاس بسيرة سيد الناس ولا إله إلا الله لا إله إلا الله وفي هذا المجال قد أجيب الأصر لا أحد يجاريه ولا فرد يزاحم بيء ياس ولا إله إلا الله لا إله إلا الله أبوه إسحاق عبد الله وجانا TV